alaikum, alaikum. mbokk internet yu internet TV ñu ngi leen di bu baax ci bi ñu ngi ci salle de musculation bi nga la Max préparer combat am Boy Dakar ñu ñëwoon pour am ak waxtaan ci nga combat 4 avril bi bu production et Stade de Mar Diop alaikum Max. alaikum salam. gëna bañ santé Yalla ci bi di sant salle Sport. Ibrahima jito ko nek fi sa ñu dañuy may ñu entraîner gratuit ñu ngi koy sante diko ko gërëm di leen nuyu yeen ñëpp di sante gaay may andal di leen gërëm di leen sante bu baax baax ma ngi nuyu dal ku nek ñëpp ku ma wax rek ak ku ma waxul yëpp ma ngi lay nuyu. waaw waaw tey mag si tey nga am bis bu reuy mu nek le 4 avril nga am ci combat bo nga am ci combat bo xamanteni combat bu mag la combat capital mu se diggante ak Boy Dakar tay nan nga préparer sa combat ak Boy Dakar. wa combat bi paré nañ ko comme ni naan pare yeneen combat yi rek. combat la comme combat yi fi jot a jàll rek parce que Boy Dakar mbër la comme yeneen mbër yu ma dajeel daje naa ak ay mbër yu ko gën a danger sax mais xam nga man ak moom dañoo tolloo ay palmarès ci làmb li ma def mu def ko mu doon champion doon daanaan man tamit ma doon champion doon daanaan ñu jox ma ko maa ngi dégg ci combat bi lu nekk nag mais du tontu kenn jour combat bi laay tontu gars yi quoi bu arbitre bi génn géew laay tontu kon kon est-ce que dëgg-dëgg xam nga sa adversaire réellement ki nga war a dajante est-ce que nga vraiment kan mooy Boy Dakar ak lan la mëne ak fan la mënewul No, xamna boy Dakar xamna ko ni rek mais tamit li li lim meune ak lim mu man doxuma ci yoy man dal lima meun lay indi ak lima entraîner and ak samay mbokk ñu ñaanal ma ma ñew di ñaan yalla may man dam ci kawam dam sedd kuy ah, gis nañ ni tamit nek na nit nek na mbeur bo xamanteni dafa meune ci côté bëre lol lol meun bés trop trop trop yow tay nan ngay taxaw taxaw nan nga fasiyene taxawé tay pour meuna dem ci bis bi tay wa bés bi comme lima la wax rek man naa ànd ak samay mbokk rek dem ci bés bi bés bi entraîné naa ci li ma ci war a entraîné li ma entraîné ci combat bi mosuma koo entraîné entraîné naa ci bu baax baax comme li ma la wax sànq boo Dakar champion la kenn du ko naptable ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne champion la mais làmb ji buñ bëggee dem ku nekk day jël champion boo jëlu champion doo dem fenn man champion la moom champion la mais gars yi nag dañoo réer a mbir bëre booy Dakar rek lañ gis sama bëre gisaguñ ko mais combat bi naa ci bëre bañ xam ne sama bëre daal moo gën a fort bëre bu dokk booy dakaar fuuf suñ suñ déggee sa wax nan nga fas yéenee bëree bëree boo ni dina suul li nga xamante ni moom di mënu Boy Dakar. wa comme lima ma la wax rek gis nga Boy Dakar bu fi taxawoon naa ko wax li ma koy wax gis nga Boy Dakar su ma jógee ci moom incha allahu rabbi yàlla may ma dam ci kawam su ma ci jógee booy yim naan dañ ko ragal yëpp nañ ko ba xam ba Boy Dakar du tus dugg naa écuréem defal fa waa bagage des. fi mu toll nii kay yow yaa yow revanche Boy Dakar dama ko yoral revanche mu yoral mo revanche dama daan busa salum seni kiri. ikiri mom mu daan ñoo de bu suñu ikiri suñu suñu ikiri la jé beurel mom suñu ikiri la jé dugg am fa ndam ma kay féré na dotul duggati garaayof bàyyi na ko. mais yaakaaroon ne ndam boobu mu amone fi taxul mo nekkul moo tax mu amaat fit Fuga sen buntu ikiri pour duggaat fi. mais mom est-ce que tamit ndam bi ma ama ndam bi ma amoon foofu moom moo man ma am man tamit mom fit ma duggaat sen ikiri waaw amna fa ndam dan na ci tabu salum fofu jël bu reuy mo des na mo ma defaral ko bagage léegi yow da ngay da fan nga teg combat bi tey ci xeex nga ko teg wala ci bëri nga ko teg wala ci lan nga teg combat ba tax nga xam ni nga yaakaar ni mën nga daan booy dakaar jël bu set wicc ci côté yëpp ci côté yëpp parce que boo nee làmb bu buñ nee bëri na bëri dóor parce que bëri bi bëri dóor na si côté yëpp entraîné naa côté yëpp physique xeex bëre lépp entraîné naa ko doole amul dara lu ma dese lépp laa entraîné incha allah di xaar arbitre bi na par rek loolu laay xaar. yow tey lan nga gis ni sa adversaire côté boobu la gën mëne ci bëre wala ci xeex la gëna mëne. wa comme li ma la wax sank man loolu daf may sonal comme li ma wax gaay rek man suma fi nekké jamono ji ni suma nekké comme tay ji période bi ma toll ni taamu ay adversaire daf may sonal. parce que tay ji bi ñëpp né boy Dakar ko wax am nga combat mu ne la boy Dakar boy Dakar boy Dakar li boy Dakar lee mais tay ji buñ fi nekké ñun ñi mbeur yu ndaw yi nii suñuy morom ñu leen di sóoraale kon fiñ tek suñu bëtt duñ fa yegg man ci Balla gay ak Modou lola tek sama bëtt mais pas ay boy Dakar yi suma ma leen naree am bay xel wala am li boy Dakar mëne li li lay beure li lay beure non non xana suñu coach si wax ci ak man defal li defal li defal le ma deglu suñu coach mais à part lool non man sama gëm-gëm laa indi ak sama beure ak sama jom ak sama fit suma dakar lok boy Dakar dara du ci doy. mais bo xolé date bi le 4 avril moy suñu jour indépendance mu nek bis bu reuy nga am ci combat bu reuy fan nga yaakaar ni tey boo daanee Dakar fan la la sa turu làmb mën a yóbbu. waaw tamit deug la parce que. kan ngay beure ñu la 4 avril jour bi amé indépendance lool rek dafa neex lool rek jour bu rëy la parce que dama yag a pour beure jour bobu comme ça nak rayante naa ci ba am ci jour jey duggal ma ci xam nga journée bi dama ci def li ci war li ma ci wara def yëpp yëpp yëpp yëpp ba jour lamb ja ma dem yalla may ma ci ndam lool daal lay ñaan di gërëm Abdoulaye Ndiaye bu baax nak daf ñu jappalé bu baax. légui côté mobilisation nan ngay wajé yow ak say mbokk say xarit say am di jam ak ñi lay jàppale nan ngeen di waajee pour le 4 avril yalla may le ndam. waaw waaj nañ niñ ko wara a rek man ak sama gaay fi fii waaw gars yi club bi ñu ngi jóg tooguñu ku ci melni ni Pape Malick mi ngi jog ci melni Simon day sonn ci affaire yi trop gaay yëpp ñom tafkiri xam nga ñom seexu ñom Fallu fàllu lepp ñew fi xam nga di japp ci affaire yi ma ngi wo ñëpp nak di wo wa Cité Marine dergalé di wo wa Jëppal wa Kassor wa Liberté 6 di wo wa Grand Yoff Arafat xar yalla waa Malika yëpp maa leen woo di leen xam nga ñoom Petit ma leen di woo pour ñu ñëw jàpp ci combat bi Petit ñoo bokk salle bi ñu doon entraîné Petit Aldo moo xam nga ak ñoom Pii maa ngi woo ñëpp ñoom Ziz xam nga gars yi ñëw jàpp ci ñoom Pape Sylla maa ngi nuyu waa kër ga bu baax di nuyu maire beeg ñëpp nañ mobiliser waa Malika dañuy mobiliser ñëw waa Yëmbal dañuy mobiliser ñëw bu ñëwee nag maa ngi ñaan Cheikh Gueye mu solo maire Cheikh Gueye commune Dieuppeul Derklé maa ngi koy ñaan mu ñëw jàpp ci combat des efforts muy grand mbay bay ñu ngi koy wo trop mu japp ci combat bi ku ci mel bi ran gom commencé na ci japp mais dañ koy wo pour mu gëna duggal loxom ta taa faatu koy cuun grand Moussa si bu fee bu Kassor ñu ngi wo tamit Ousmane si président Yéritari mu ñew japp ci di gëreum tamit Ardo Ardo tamit na ñew japp ci combat yi xam nga Moussa Bey na ñew japp ci combat yi Abdourahmane Koser xam nga nañ ñew japp ci combat dañ ci wara japp di wo tamit grand Moussa si di woo tamit grand Cheikh Meng grand Cheikh Ibrahima Meng ñu koy wax grand Cheikh Messi ñu ngi koy woo bu baax pour mu ñëw jàpp ci combat bi madame Bey Pape Alé Samb tamit na ñëw jàpp ci combat bi xam nga Samb dañ ko soxla ci combat bi jàpp ci Adama Faye na ñëw tamit jàpp ci combat bi Moussa Bey xam nga commencé na ci jàpp mais na ñëw jàpp ci combat bi Pape Amady Faye tamit soxla nañ ko ci na ñëw jàpp ci combat bi benn grand benn président jëppal Mbacké jëppal ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi parce que soxla nañ leen ci combat bi Fassou Cézo tamit ñu ngi leen di woo xam di di woo Mor grand Mor an day jàpp ci combat mu gën ci jàpp ñu ngi woo daal ñëpp di woo si marine bi yëpp ñu génn xale li ñaa tamit xam nga daf ñuy jàppale chaque chaque jour chaque ñuy jàppale ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàpp ci bu baax baax a baax a baax maire tamit suñu maire bu baax la dëkk fii ci koñ bi xam nga daf ñuy jàppale chaque jour saa yoon amee combat daal day jàpp ci combat bu baax a baax a baax ak Bas Simone Bas Simone jëppal tamit waxoon na dina si jàpp mais ñu ngi koy xaar combat bi passé jàpp na ci mais na ci gën a dugal loxoom petit bàcc jëppal petit bàcc moom mention spéciale parce que day jàpp ci affaire yi bu baax te xale bu ndaw la mënoon na ci bañ a jàpp jàpp chaque jour di gërëm xam waa jëppal yëpp di gërëm waa presse ci ta prestation xam nga gërëm ñëpp waa kër ñoom Sidi Mbaye waa kër ñoom Amina Cissé xam nga di wakk gërëm waa kër ñoom guy gi Kasoor xam gërëm waa kër ñoom Pamar waa kër ñoom Matar li ak Matar li da ciy sonn trop si si maire jëppal day jàpp ci affaire yi di ko sant tamit di sant seen waa kër bu baax a baax a baax di gërëm ñoom Guèye Guèye ñoom xam nga ñoom Moussa Fall foofu di gërëm suñu waa kër tamit ñi togg añ yi ñoom Kewe fay Sali Kumba Booy Fatal xam nga ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci maa ngi gërëm daal waa Cité Marine Derklé ñëpp ñëpp ñëpp waa marché Kasoor di woo ci combat bi ñu ñëw jàpp ci commencé nañ ci jàpp ñoom ñëpp ñoom Moutala xam nga ñoom As xam nga ñoom Baye Fall ñoom Serigne ñoom ñoom Njaga ñoom Bas ñëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi waa marché Kasoor yëpp maa leen di woo pour ñu ñëw jàpp ci combat bi agent mairie maa leen di woo waa mairie bi yëpp dañ ñëw jàpp ci combat bi parce que dañ ci war a jàpp parce que seen doomay bëri combat bi nag di leen wax xam nga maa ko jëlal sam bopp parce que boo seetloo combat bi jox nañ ko boo yu bëri ñu bañ man comme sànq ni ma la waxee rek man doxewu ma man fi ma teg sama dafa sori su ma naree ay boy Dakar yi nii ma dem toog defi leneen mais mun ko daan moo tax ma jël ko te billaay ba arbitre bi sifflé noo texelam yooyu dina ko bàyyi ay texel yi nii ay xaar nga laaw nii mu ñëw xam nga ñëw yooru nii wala mu arrière nga dox ci kawam mu ñëw xam nga yooyu def naa ko fii man booy gën a dansé ci làmb ji maa leen daan ay Onaconda si tëbu Saalum xam nga ah jamono yow instant yi 2019 bi nii 2019 bi nii data ñu amagul defet la ñu amagul defet rek kay bëre xoolal rëg-rëg ak kii giri de kenn amagul ci defet mais kenn na ci am defet xanaa ñu nil yóbbaale Tapha Mbeur am na defet boo yu bëri fii ñu amul woon defet ñëpp ren lañ daanu moom dina daanu ren incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee man maay ki kay feree na man dootu duggati Grand làmb séeréer sax tere naa ko dootu fa duggati adresse Senghor su ma paree ci combat bi maa ngi fa fu mu dem maa ngi foofu. léegi léegi tey mun nañ xam tey lan mooy sa dernier mot bi nga xamante ne moom nga yax sa adversaire le jour J. waaw booy Dakar xam nga di ko wax ne xam nga na ñëw xam nga di ko ñaanal mu am jàmm mu am tan am salaam xam nga ba ñëw ci làmb ja ñu def li ñu war a def. arbitre bi sifflé mu ànd ak jom ak fulla ak ngor nag comme ni mu ko daan amee ñëw taxaw man tamit ma indi li ma indi. su ñëwee bu arbitre bi ne par non gars yi nañ gis beneen teemax bu bees incha allah. que nekkul da ñuy nax rek. non yàlla tere yow man xoolal sama combat yu ma bëre benn benn benn yomb ku ma jël ñu ne ma tay nga dee combat ma jël yëpp nag ku ma jël dañ naan ma tay nga dee booboo may gën a jik combat bi boo seetloo dafa bëri wax gars yi ne nañ lan moo tax nga jël combat bi ñu bëri ne nañ xanaa xooloo bi ngay jël combat bi loolu moo tax may waxee yow foofu. comme ni ma la wax sànq rek laay tontu gars yi dinaa gars yi man su ma naree man teg sama bët ci Balla Gaye ak Modou Lo di sóoraale benn booy Dakar nii ma bàyyi bëri libidoor laay kontaagal libidoor xam nga libidoor libidoor fu mu fekk saawaay da kay lem libidoor li may contact ak moom nee na ma saawaay lii boo ko yóbboo ci làmb te waxuma la ku dul booy Dakar da nga koy daan booy Dakar man taxumaa jóg teguma ko bët te dina naa la fii laa la ko waxee booy Dakar dina yam dina yam man waaye man seentuma booy Dakar saawaay nag man instant yi dañ ma yab yàkkamti ma waa Grand Yoff mbooloo dañ ma yab di nuyu waale coach yëpp ñoom Père Aymiri ñoom di ñaanal Nandi Fall yalla may ko ndam Requin tamit dafa am combat suñu kiri di ko ñaanal yalla may ko ndam sedd guy Pablo dafa am combat suñu kiri tamit yal na ko may ndam di len wax ne combat bi la Kondal fonk sama combat yi. kon daal kon buñ la deglo ba affaire bi ñew jël dem la de lay doon. ba ñaka mako mom li sama bëss la. ñew jël dem rek. sama bëss la ñew jël dem ci ñek ak tranga mu bañ ma foqarti ko keuf ko foqarti ko ci mom rabbi. baxna waaw.